gaay yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare bu baax tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne ci mooy Goudomp ci màggal Seydina Mohamed bi ñuy amal fii saa su ne fii ñu nekk nii nag moom moo nekkoon ancien daluwaay bi nga xamante ne ci fii la sëñ Badiane dëkkoon fii nag la Alaaji Mouhamad Moustapha Ngom presque daan defee tournée yu bari fii la daan dal kër gi ñu nekk ki ñu taxawal nii nag moom mooy doom ci Ibrahima Badiane ñu koy wax Pape Sidi Badiane tey nag moom góor gi fan la daan fan la daan taxaw bu daan ñëwee fu mu daan taxaw gàmmu gi fan la daan am côté yi ak moom fan la ma nekkoon ci ancien maison bi kon Pape Sidi ñu gi. waaw di sant ñëpp. Hmm. waaw di leen naan asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw tey jii nag ñooy Gorom. Hmm. Gorom bi nga xamante ne moom mooy. cosaan cosaanu El Hadj Mouhamadou Ngom. Hmm. parce que booy seet kër gii moom moo ne ancien kër. Ibrahima Bayan mhm. film moo ne woon base bi mhm. kër gi moo nekk nii mooy bâtiment bi ngeen di gis nii mhm. waaw léegi saa gars yi Dakar pour ñëw tourner si fii lañ daan ñëw préparer pour mën a dugg ci gox goxaan si gox goxaan yi bu lu mu guddi guddi fii la ñuy pour ñëw fanaan parce que booy seet affaire yi la waaw góor gi tamit euh, wan na fi lu bëri bëri bëri bëri si kër gi. macha allah comme tey ci wane gi nga wax tey lan nga yow fàttaliku ci jamono boobu ga góor gi daan fi ñëw nga nekkoon xale mais du ñàkk ne am na loo si jàpp léegi nga wax ñu lan nga ci fàttaliku yow ci tournée yooyu. waaw euh, dañuy njëkk sant yàlla ba yàlla may ñu ñi nga xam te jot nañu fekkee jamonoy góor gi. donte sax ay xale lañ. Mhm. mais wax dëgg fa yàlla comme lu ñuy naan xale du fàtte. dëgg la waaw jot nañ gis ay mbir yi nga xam ne defoon na ko fi suñu kanam waaw waxatuma la kër gi nii nii kër gi nag lu lu bëri xew na fi hmm. yaa ngi dégg booy seet ci vidéo bi am na vidéo bu ñu dugal si groupe bi waaw vidéo bi mooy taxaw di xool jant bi si kaw waaw waaw dëgg la waaw su xoolee ci kaw jant bi da ngay gis mu daal di xool ci fooy bi mu bind hmm. bu bindee ba si kanam day xoolaat teen asamaan si hmm. xool ci kaw mu daal di bindaat loolu nag mooy xewee fii ci fleur yi mu nekk fii nii fleur yi nga gis nii. waaw amu woon jëlal nga waaw. waaw benn néeg moo fi nekkoon benn garage. Hmm. léegi garage bi oto bi su ñëwee oto paa bi fii la koy dugal. Hmm. yaa ngi dégg léegi nag boobu mooy ngi xewoon moo ngi taxaw ak paa bi ak délégation boobu. toujours sa gars dañuy waajoon pour dugg tant. waaw léegi nag ci la doon def loolu noonu. mooy xool ci kaw asamaan. muy daal di bind. waaw léegi am na benn fotom mooy fu mu toog si. te am benn moto bu nekk ci wetam. Mm-hmm, mm-hmm. waaw boobu tamit fii la woon. gis nga garab bi ngeen di gis nii. waaw garab bi wow bii nii nii nii yi si bëri góor gi fa la daan topp. ndeysaan. si gë ci ci ci garab bi la daan topp. Mm-hmm. waaw moo tax daal fii daal wax dëgg fa yàlla lu bëri bëri bëri xew na fi voilà ma am lu ma si dolli tamit. fii amoon na xay bu nekkoon fii mooy seet xay bële. daanu la waaw xay xay bële dafa daanu. si ata bi voilà. Euh, xay bi góor gi ci boppam. danañ toog ba guddi. Mhm. mu daal di dem foofu noonu muy taxaw di di di lakk mais suy lakk kenn du xam lan lay lakk. Mhm. day mel ni ay baatu arab lay lakk mais ci man sa matama daf bon ci seen xam-xam bopp yaakaar ne arab lay lakk. Mhm. mais après sooy màgg ci ngay gën a ci la ñu expliqué nag kër gi fii am na eh, garab yi am na génn bu fi nekk. génn bi wax dëgg yàlla la génn jullit la. boobu la ko waaw mu ne génn bu baax la génn jullit mooy garab bi ngeen di gis waaye gi fi kër gi ni gamu gi mom fan la exactement ci ci côté gi ni ndax gis nañ léegi fi dafa sax ay garab fi di daanaka léegi garage fa am na nii rek loolu yëpp waaw nak gamu gi dafa yaatu wala fa nekkoon si benn rukk rek voilà léegi xam nga boy set fi ni ni ni nii ci bayal bi fi waaw waaw bayal bi lañ doon def gamu bi mais bobu temps bâtiment yi nii yëpp amu fi woon li ñoo ngi so ñoo ngi koy door a tabax mooy garage yi mais lii yëpp amu fi woon parce que fii dafa yaatu woon ndeysaan waaw da nga daan taxaw da nga daan taxaw si du gis ba ku sa bëti yam macha allah boobu dara amu fi woon moo tax ba bu ñu doon tant pour magal yeneen fii lañ ko daan defee mooy espace bi ngay gis nii léegi bâche bi daa doon jóge fële fu garab yi sax nii actuellement garab yëpp amuñ fi woon yaa ngi dégg fu garab yi sax nii waaw lu ko jëlee ba si garab bii waaw booy seet en général góor gi bu otom bu daan ñëw fii si miir bi la doon taxaw fii ci miir bi la doon gaare juste. waaw oto yi ñu rangé leen nii. macha allah waaw léegi nag. Euh, mbir yee changé. mbir yee changé wax dëgg yàlla kër yi la kenn nekkatu fi. bon gis nga. ñax yeeg day wane comme lu mu wax rek. waaw fii nga wax nii bu njëkkoon amul woon dara. te na restaurant bu mag. am na restaurant waaw ay garage la kon day wane waaw lu mu naan da da lay wane nitu yàlla fépp fu mu jaar day barke. la parce que lii yëpp kenn xalaatu ko fi woon. ay garage ay station Total. ay pharmacie ay resto lu ne mooy fii. ak tali bu baax. loolu lépp ci barke moom li nga gis ni ay bâtiment yu bees la lépp ay école la mais lépp amu fi woon dëgg la waaw lii amu fi woon mais léegi yàlla def na jàmm fii yëpp doon na école macha allah fii yëpp ay bâtiment yu bees rek ñoo fi nekk kon nga xam ne wax dëgg yàlla nitu yàlla rek a mun loolu dëgg la waaw moo tax wax dëgg yàlla euh, El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom almahdi lamatazan moom dañu def di ko gërëm di ko gën a sant macha allah waaw di ñaan yàlla yàlla gën a yokk suñu ngëm ci moom amin si daraja yeneen sallallahu alayhi wasallam waaw li day wane comme lu mu wax rek ne mawlidu shariful màggal juddu yonent teddaange la mm. ci mboolem suuf yàlla bi fii jamil arillahi maanaam mag foo màggale yonent bi foofu day tedd tey loolu mooy li nga wax loolu la wane fii dafa tedd bu baax ba waa dëkk bi xam ne fii tedd na dëkk yàlla am na avancement oh. ñun ba ñuy ñëw tali bu baax la ji di gëndeek si ngeen sor mm. ba guddoom tali bi no problème wax dëgg yàlla it station bi am foon te station moom si biir àll bi après total en plus ak restaurant bu mag bi garage bi wax dëgg yàlla fii moom fu màggul waaye xaw ma fan waaye fii màgg na voilà euh, dafa am lu ma fàtte tamit dolli tuuti bismillah amoon na benn jamono boo xam xamante ne tamit hmm. euh, moom da doon jékki saa rek ñi daal di ñëw fii mu ànd ak ñoom fay ñoom jeng te du gàmm du dara du gàmm du dara c'est léegi mu am benn bis hmm. fii la woon boobu il faisait ay une heure deux heures du matin boobu dëkk bi ñëpp wani jegi jegi di deug sikal ya, ya, ya. allahumma salli ala sayyidina muhammad khairal wara rasul bobu la don sikal mais bobu bamu don ñew euh dafa andon ak ñom pa fay legi ñu wacce ko dekk bu ñu nan kawur mhm. kawur la wacce mëna ñom fay nañ ñew fi nañ ko jitu ci mais bu ñëwé bu ñu yewa kër gi nañ leen bay ñi ñi tëdd yaay deug legi ñom fay mhm. bu ñëwé dañuy ñëw fessel auto bi nak fi lañ garé ñu dal dugg buñ duggé kay kay jël aja kay jël li moy perron bi ñu gis ni waaw fii lañ daan lal seen si jaada yeeg basan yi ñu daal di tëdd léegi noonu sama papa si la dëgg sikar góor gi di sikar après ci la yee sama yaay mu ne ko ah man de sikar El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom laa nekk di dëgg paa bi xool heure bi mu gis ne ay deux heures moo jot mhm. mun na ko El Hadj Mouhamadou Ngom mu ne ko waaw mu ne ko loolu mun na mënul nekk voilà si noonu maanaam lu mu gën a dem sikar bi di gën a fort mhm. te boobu moo ngi toll kaw di dox di ñëw léegi nag comme affaire bi commencé na jaaxal paa bi paa bi nag xaar mu ubbi bunt bi ma xool parce que lii moom yéeme na moom. heure bii nii nii nii ngay dëgg si te doo xam fu mu bàyyi ko. ci la ubbi bunt bi. yaa ngi dégg ba mu ubbee bunt bi mu gis ñoom fay ñoom Dieng ñoom si Cissé ñoom yëpp daal di lal tëdd fii. waaw gan yi ñëw si lañ daal tëdd fii am ñoo xamante ne fii la ñu laloon si digg ëtt bi tëdd. boobu temps bâtiment bi fii la ne mhm. amaat aussi mu am benn perron bu fi nekkoon gars yi lal si bi tëdd léegi nag ba mu génnee mu ne ah, ci la gis gànnaay mu ne la noonu dëgg fa yàlla mën na ngeen ñu yee rek ñëpp waaw dugal si ci la gars noonu góor gi jox ndigal ne bu ñu ñëwee bu ñu waaw bu ñuy sonal kenn macha allah ba nu mu moom am na fi moom dëgg fa yàlla macha allah kontaan nañ bu baax sama waa ji waaw macha allah interview bi neex na am na solo yàlla yàlla guddal fan yi ba li nga nettal nii say doom ak say seet ñoom ñëpp di koy nettal ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ngi ñëw seen ginnaaw parce que lii histoire bu mag la parce que Alaaji Modou Mbow Ngom koo xam-xam ni nitu yàlla dëgg la te koo xam ne dafa yor mission la kon lii nii histoire bu mag la fii cosaan lii lañ naan patrimoine lii patrimoine xayraat lii ñëpp ko war a xam ni kër gi góor gi def na fi ay kiimaan yu yéeme yéem lu ñàkk it am na loo xam yow échappé na la waaye bu ñu si paa bi wala maire bi incha allah rabbi lu bëri sax parce que foofu temps yooyu lu bëri bëri xewoon ci kër gi dinañ leen ko def incha allah macha allah ci li mu wax dégg ngeen ko nu amee solo kon fii cosaan fii moom kër gu moo tax bàyyi xel la di fi ñëw di barkee loolu parce que nit yàlla moo fi daan jaar def na fi kéemtaan yu mel noonu yëpp waaw am na benn vidéo mooy am naa nañ leen ko wan incha allah bu góor di xool ci asamaan gis nañ ko bu xoolee nii day bind ba mu yàgg mu jox ko sa papa loolu it xam naa dinañ du ñàkk dinañ yegg ci paa bi laaj ko loolu góor doon bind sikkar la war a ab lan la bu ñu ko mënee baaxee ñu baaxee ko baaxee ko doomu aadama yëpp incha allahu rabbi kon mbokk yi loolu moo nekkoon tey suñu interview ak ki nga xamante ne si moom mooy Pape Sidi Badiane fii nga xamante ne si mooy Goudomp kon dañ leen jox daje ak suñu beneen invité incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah